لله الكريم سلما على السخال بفرود وسنن سكرت لأنه قد سخن لوطن بي نفى مع القين وخادني إليه بالتعالي من بعد ما سبب التخيل وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي خزي قنا تبعا على الذي من بمراد اقتدى في سر والجري يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينه buñ demee ba añ ba àggal ba ñibbi ba delluwaat seen ba duutu taqati suuf ñu dugal ko ca mu niin ñu mën koo lekk loolu fii la nu fekk ana loola jàll na dem na yoonam wax naa léegi suñ seexonaa loo mii ma ne ko daara man di ma gisee day am ñetti étape yu muy jaar étape bu njëkk bi day metti lool tar lool ba koo xam ne dangaa ragal dangay daw koo xam ne da ragal ci njëlbeenu daara dangay ngay daw ndax noonu la ko yàlla bëgge bala laa yàllaa nattal dalay lay natt yàlla du la nattal mukk nga naan tey am na nangami bërigo te fekk nattu la njëkk ahasiba naasu ay yutraku ay yaqulu amanna wahum laa noonu nit ñi ndax dañoo njortu ne dañ leen di bàyyi rek kenn ko ne naan aman naa gëm nan te kenn du leen di fitnaal déedéet ñe leen jiitu woon man yàlla dama leen a fitnaaloon wala qad fatanna alladina min qablihim lan laa ci jublu man a xam ñi dëggu ci ñoom ak ñi nga xam ne waxuñu dëgg fa la yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalaman adallahi xaq wala yastaxifannaka alladina laa yuqinuun moo moo tëj sóoratu ruum muñal daalub yàlla dëgg la lan mooy daalub yàlla mooy li wax ci biir saar woowa di sóoratu ruum mooy wa kaana xaqan alayna nasrul muminin yàlla ne dama gàlloo dimbale ñi ma gëm man maa ko jël engagement xaqan alayna nasrul muminin suñ Mor Fall metti woon na lool ci daara ji mu gumba tëx lu ñetti yooyu laay boole ci moom mu gumba tëx lu maanaam moom amuloon benn jubluwaay ci àddina lu may nit ñi nañu xam ak lu mu ca a daj nag lu metti metti jaral na ko wallahi léeg-léeg am ñoo xam ne ci ndaje mii la leen sëñ Mor Fall di xool ba yàgg mu xam ne ñi mas nañoo jaar ci daara ji gis naa ko léegi ba may nuyoo fële am na ko xam ne da koy mu jékki-jékki dóor ko noonu ngeen noonu ñu ko miina rek topp ko ne ko ah yow ndekete fàttali ko na jamono yi fi nekk fàtte ne ko sax loolu mooy nit ku bëgg lu baax mooy nit koo xam ne lu baax dong dong moo koy téel ci jaam ñi sëñ Ahmad Saxiir rahmatullahi alayhi daf daan wax ne su ma amoon xaalis damay fay jàngalekat fayu donga fay sëñ daara fay wayjur te ñooñu duma leen fay ba noppi bëgg leen a gisaat du ma ci bëgg gisaat kenn lu ma yomal xiyam suñu seetal loolu su ma amoon alal ju ko mate jàngalekat bi daa koy fay fay donga bi fay sëñ daara bi fay jur wi ko fi indi te su ma leen fayee ba àggal ba def ci ñoom li may def du leen bëgg gisaat lu ma yomal xiyam loolu mooy ixlaas Sëriñ Tuubaa nee na waamal liman in taktasib ridaahu yakfika fi daarayni ma taxshaahu waamal liman ida lahu amilta bi wajhi lixlaasi ridaahu nilta masaalikul jinaan la ko wax nee na jëfal ngir kan mu ne liman ida lahu amilta ngir yàlla mi nga xam ne soo ko jëfalee bi wajhi lixlaas ci anamuk sellal ridaahu nilta da nga am ngërëmam waamal jëfal li man in taktasib ridaahu yàlla mi nga xam ne soo fàggoo ngërëmam àddina ak alaaxira dootoo am loo fi ragal yàgg fi ka fi ni ma tax sew mbokk yi daara yi léegi ak daara yi démb bokkut daara léegi kum neex ubbi ndax am na ñuñ sax daara bi mu neexee ba neex lañ ñëw ubbi waaye ba daara yi metti ba metti bari ñi muñ koo jege ndax daara dafa am melokaan spécial wu yor daara dafa am jawi boppam. ni marché Ocass amee jaww njóobentaay am jaww hôpital moo xam CTO la moo xam faan am jaww police am jaww daara noonu la amee jaww jaww spécial la daare ak marché njóobentaay onze ak a ñoo wóotee am na koy tarifale innama sabilu këlee tari lilladina ahsanu kële nekk wala tuyaadilu ñëpp di yëkkati kàddu yàlla muy dugg sa nopp yare yi may wa ana axtartuka fastami lima yuuxa dama laa tànn moo tax diglu li ma lay wax yi ab sëriñ daara kudul moom moo la gën ci làmmiñu yonente bi sallallahu alayhi wa dama ne ab sëriñ daara kudul ab sëriñ daara ab sëriñ daara la gën xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu loola yonente bi moom la wax ki gën ci yéen mooy koo xam ne daa xam lu alqur'an ba xam ko toog di ko le abdourahman assulami mi nga xam ne moo nettali xadis bi jële ko ca ousmane toog na kuufa juróom fukki at di jàngale alxuraan nee na xadis bi moom fi toog loog ba ay xalaqaatam giiw yi muy jàngalee bëree ba am mbaam lay war su jàngalee ñi daqaan mi jàngal ñële daqaan mbaam jàngal ñële soo waxee mu ne xadis bi rek moo toogloo fii moom moomu nettali xadis boobu jële ko ci ousmane sayidna ousmane moo nettali xayrukum man taallama alquran wa allamahu biñ koy rey kaamil baa ci loxoom alquran am na cafka gu ci nekk goo xam ne la ngay wax ba ñam ko dara du la sama tic alxuraan ngeeg cafka goo yi bu ca ngay gas ca njëlbeen nga mu metti lool ñu naan waa kañ ngay jot ndox waaye ba jotee ndox gas katub teen moom xam na lii may wax bis bu jotee ndox coono yépp mu fàtte ko njëlbeenuk daara day dëgër digg daara day tane mujjug daara xéewal yépp day ñëw boo deful ndànk sax doo jàngale dem naa seeti genn góor ndeysaan fële ca Touba ab jàngalekatu alxuraan la mu ne damaa tiit man ñu ne ko loola tiit loo mu ne xéewal dañoo bëri xéewal dañoo bëri te xéewal yépp weesuwul léegi da ngay tëdd fu neex uppukaay yi di la upp man naam sax ñu climatisé sa néeg bi alors ah, ndax da nga ko mën a boolee jug njël di jàngale yàlla xam mën naa nekk waaye man damay wax ne daara nam war a mel su ko melee même buñ ko état sonn du tee ngay sonn du tee ngay sonn am na am nañ ndaje mu mel nii mu ñuy amal fële kër sëñ euh, jatara sëñ alaaj jatara ab jàngalkat alxuraan la yàlla ko sama borom dëgëral te dafa am bis ñu koy naw di wax naan moom su ma saana toog ñu julli liggéey ba nopp muy téele day topp téele bi topp téele bi topp téele bi ba nga xam ne bala doo xam kañ lay tëdd ba muy commentaire ke loola dane man kat ci saab sëriñ laa ko jële woon loolu gis nga ci loolu ci saab sëriñ laa ko jëlee woon mag ñu njëkk ñi dañoo bëggoon alquran da danga daan gis koo xam ne day toog téel juróomi isib nit mu àggal mu ne sëñ xaanim Jóob kaay ñëwal nga ñëw tari sa juróomi isib sëñ Abdou Xaadir bismillah noonu lañ koy toppee ba fajar laa la wax duñ ko yëg sax te loolu yow mën naa xam léegi xoolal whatsapp bi tey jii nit dana ci nekk ba fajar du ko yëg. kon ñoo ngi euh, bu dem noonu nga koy toppee fajar Facebook noonu nga koy toppee fajar ni ko bëggee nu ko raw na ñooñu bëggoon alxuraan sëñ Mbaye yi mi doon jàngal sëñ bii ma àndal muy sëñ Daawuda ñetti xat mu la amoon ci alxuraan xat mu boo xam ne da koy naafilaa guddi xat mu boo xam ne par semaine la koy jàng ak xat mu boo xam ne su ngeen toogee. bu gisee say wax jëm àddina mu jàng mu tàmbali ko nga xam da koy tari moom suñ béykat daa xëy suba teel rek bis bi mu war a bis bi mu war a faatoo tàmbali fatiha jëmee na jënti wanaas bi muy jàng alquran ba agsi ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum wallahi fan foofu kaamil bi ibra ko àggale ñu soog ko sang sëñ bi nit lu nekk da koy gëm booy lab da ngay benn yoon rek xam naa koo xam ne baayam sañ Baara Faal nee na ma sama baay alquran guddi alquran bëccëg bi muy waaj a faatu ñu yóbbu ko ca hôpital ba alquran la fa duggee ca hôpital ba di tari ba agsi ci bal huwa qur'anum fii law lawxi mahfuuz di ko baamu ca kaw waa hôpital bi wax genn waay ne ko teen ko wax mu wàññi wàññi kaddu gi daa mel ne mi ngi déranger hôpital bi de doom ji bi mu ñëwee ne dañoo bëggoon nga wàññi kaddu gi mu ne ko mënu ma ko ko wàññi de ci lii laay faatoo wallaay ca la faatoo ca loola am na fii diggante ndakaaru ñetti nit daanu oto bi daanu ci seen kaw kenn ki gan kàddu la mujj a wax doon naa la ko topp saaboor bi di la ko topp di la ko topp mënuma ko fay waaye ba yomal xiyam daa ruuga daal di yem kenn ka ay saaga ya gën a ñaaw lay saaga ba ni mu faatoo kenn ka too tàmbali tooha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadkiratan liman yaxsha tanzilan mimman xalaqa al arda wa samawati al ula arrahmanu ala al arshi lahu ma fi samawati wa ma fi lardi wa ma baynahuma wa ma taxta sara wa in tajhar bilqawli fa innahu yaalamu sirra wa axfa bi mu ne allahu laa ilaha illa hu lahu l asmau lxusna roog a dem am na ku fekke soog ba doon ab julit kum gis lu mu lay laaj taaha wa sami taaha mooy lan taaha bañ ko leeral ne taaha aw saar la ci alxuraan ci la dugg ci lislaam sëñ bi kenn ku nekk la nga dund bu faatu ñëwee da ngay faatu moo tax ñi mat a ñee dëggantaan mooy ñi nga xam ne dañoo yàgg ci alxuraan te yàgg ca yàlla yàlla bàyyi leen ca wa huwa alladi man sabata fiihi walam yaltafita daa amalin yakun fata inda shakuril akrami la sëñ Tuubaa wax téerée ngi nii boo xam ne wa huwa alladi man sabata fiihi ku ci sax kon am na ku ci saxut koo xam ne sax na ci walam yaltafitaa waxuma nii de iltifaat xol a koy def xol ñu gaare pasoro nga ah est-ce que dugg ci kat kaar yi di gaare su buntu daara nga <laughs> man dama yaakaar ne yaa ngi iltifaat kon ki ci sax te ba noppi daa amalin di jëfe téere bi kooku yekkun fata waajangoog waajangoog fan inda shakuril akrami lamuuna azim innahu la qur'anun karim ni yàlla melale boppam ne huwa al aliyul azim nga xam ne moo tëj kursi yu huwa al aliyul azim noonu la waxee ne wa laqad aataynaaka sab'an min al masaani wal qur'an al azim ni yàlla waxee ne maay ko kawe ki maay ko xereñ ki wa ma kaana li basharin an yukallimahu llahu illa waxyan aw min waraai xijabin aw yursila wala aw yursilu rasula fa yuuxiya wala fa yuuxi bi idnihi ma yasha innahu aliyun hakim noonu la waxee wa innahu fi ummil kitaabi la day naa la aliyun hakim alxuraan ak yàlla ñoo bokki melo looloo tax mu rëy loolu moo tax alxuraan rëy ni borom bi subhaanahu doone koo xam ne mooy saafara ku wéradi ku ne moo lay saafara wa ida maridtu fa huwa yashfini ya ayuha nnaasu qad jaatkum maw'iza min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur alxuraan yàlla ñoo bokki melo loolu moo tax mu rëy képp koo xam ne mooy nga ci alquran jàpp ci sa kem kattan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala bala laa yiw bu ba àllaaxira di la yéegal fii ci àddina la koy tàmbalee xool moo kii mbaar mi ña an ñu ko taxawal mbaar mi gouvernement taxawalu ko ab gouvernement ku ko yaakaar ci daara demu fenn gouvernement du ma sa dugal loxoom ci daara parce que formation bi mu yor ak bi waa daara yor bokkut ñii bu ñuy tàmbali di bind fu ñuy ba ñuy départ lañu waroo kii jëm fële kii jëm fële wa asxaabul maymana maa asxaabul maymana la topp muy wa asxaabul mashama maa asxaabul mashama bokkuñu ñoom dañ lay xeex waaye duñ la jàppale inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yasuddu an sabilillah fa sa yunfiquunaha summa takunu alayhim xasra summa yuxlabuun suratul anfal kon buñ séentu ay ndimbal di bàyyi koo ci état ndimbal fan lay bàyyi ci dong yii mbaar mi ku nekk xëy na ah ku am na sa sa sulaf su nekk ci mbaal mi te loolu mooy bénéfice bi gën a rëy boo demoon ba ba ba nekk ci biir bàmmeel dong yi nekk ci biir mbaar mi di jàng alxuraan fekk yow sa ciment dem na ci biir mbaar mi sa sa sa dërëm boobu réerut wallahi sa dërëm boobu réerut dërëm boo dugal ci mbaarum alxuraan ay dong nga nekk ci biir di jàng alxuraan nga nekk ci biir bàmmeel ak leer lay doon ak leer ak leer lay doon. sëñ Ahmad Saxir daana wax ne ku ma bëgg a jàppale gaawal balaa saa dongaa yee màgg ma bëgg a jàppale gaawal balaa saa donga yee yi buñ màggee jeex na ku dem ko xam ko maanaam nit yi ñi jaaroon ci daara li leen di bëggaloo daara doo kenn xamu ko xoola bu nekk ci biir mbaar mi fi mu toll nii kenn ku nekk sama morom la gën ak sa bopp te ci dong dong la am ci daara kese la am amul feneen dunduk daara dund spécial la moo tax ñu koy nuróoleeg ay camp yooyu bokkut an bango bokkut laa wax bango alxuraan dafay riir bokkut nit ñi bokkuñu barab yi bokkut barab buñ sanc la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fii ba ci jàkka yi sax jàkka joo xam ne bañ koy fondement min awwali yawmin taqwa moo ko lal bokkut ak beneen jàkka boo xam ne noonu melul noonu daara alxuraan yi li ñu bëri bëri koo xam ne ba ngay sanc yàlla dong dong dong moo taxoon ngay sanc du bokk ak koo xam ne xaalis a taxoon ngay sanc dafa am góor gu baax ndeysaan yàlla ko sama borom yàlla bàyyi muy sëñ Assane ma nga fële ca Aynu Maat sëñ Assane ñang maa nett li mu ne ma sama daara ji ba mu taree ba tar ma def lu ma bay rek dong ngay jëfandikoo ñu wax ma ne ma Arabie Saoudite day am na fa ay muhsinun ma lijjanti ba dem fa lañ ma fa jox baa ñëwee mu tudd weer donga yi ne ko fuuf mu jeex tag waaw donga yi moom xam nga leen nee na fi ma toog la ma soxna sama soxna fekk ne ma saako yooyu jeex na ma tàllal saay loxo sama borom ne daara jii su fekkee ne saa bakkan bii dong tax ma sanc ko tas ko damaa sonn tasal ma daara ji damaa sonn bu fekkee saa bakkan a tax bu dee sa jëmm a tax tiil daara ji ku fa dem xam ne yàlla téye na daara ji mu ne ko bu so fekkee sa jëmm a tax téel ma téel ma daara ji daara ji la sa yoon daara ji ay kaamil ñoo fi nekk ak ay alliwo alliwo yi moomoo leen ndax dañ lañ ciy bind moomoo ko alxuraan ji moomoo ko say doom sax jaamar yee leen ci ëppale ku ne xam ne ne jariñoo fii ñoo ëpp njabootu sëñ Mor bi te njaareem dëkk bu saf alxuraan la li ta surtout nag li tàmbalee ci gox bii kër sëñ Malick ndeysaan sëñ Malick Dieng euh, ku ñuy wax Baye Dame Dieng daf may nettali ne ma sëñ Malick buñ ko mosaan di yéem sëñ Bas dañuy wax ne yéen ki ngeen di yéem bu ngeen dundoon ak moom da ngeen ko gën a yéem kooku ba ci nim feebare ba ci nim feebare ñi ngi mu ngi mi ngi wut ay dong yuy tari juróomi isim ñu nekk ci wetam di tari doot di mënta wax doot di mënta wax c'est parce que loolu la dund moom la xam xamul leneen li aw fanam di ñàkk ñàkk gudd nga xam ne amul juróom benn fukk amul juróom ñaar fukk ba aw turam ba bi ba ñuy lem dend bi du fi jug wax. am problème ndax nit ñi dañuy yaakaar jeexalu dara ab sag ab sag daf ko am nit ñi dañuy yaakaar jeexalu dara man am na ko mosoo woo di ma àbbu xama ñaata. <laughs> alhamdulilah rabbil alamin <laughs> <laughs> nga xam ne moom noonu la ma tasawuree moom noonu la ma gisee moom jàppal na fi ay millions laa yor <laughs> waaye li ma yor moo ëpp million ay milliards sax moo ko ëpp man milliardaire laa alxuraan laa man milliardaire milliardaires yi maa leen ëppale laa la wax qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu li ci topp huwa xayrum mimma yajmaun wa rahmatu rabbika maa nga zuxruf zuxruf laa nekk wa rahmatu rabbika xayrum mimma yajmaun mbooleem lu ñuy dajale alxuraan ko gën kon milliardaires yàlla yàlla nangu leen te barkeel leen wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin xale yoo xam ne dañoo ràññeeku ci ay jikko yu rafet ak ñoo xam dañoo ràññeeku ci téere bi yàlla bi di alquran su ko defee rek ñu jébbal leen ko en attendant euh, sëriñ Abdou Khadir si euh, moom bokk na ci dongo yi njëkk ci ñi njëkk a jaar ca daara ji euh, su ko defee daa am ay kàddu yoo xam ne moom lay jàllale ci ndigalul sëriñ Mor Fall su ko defee bu sëñ xaadim ñëwee rek ñu tënk yooyu ñu indaale xale yooyu ñuy wax euh, su ko defee ñu jox sëriñ Abdou Khadir si mu jàllale kàddu yooyu su ko defee ñu doog a waajal xale yi bisimilah. mu ngi li nuyu ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sant di wax itam ci turu. Serigne Mor ndax dama agsi rek mu ne ma maa ngi lay ñaan lum gàtt gàtt gàtt gàtt bu bu bu daara ji teewee nga sànni say kàddu ci sama tur loolu nag lott nañ lool ci lam ma dee ñu wax ko fii ci ci cant jotal leen ko waaye ñu ci junj rek wala luñ ci tudd lu mu gàtt gàtt ci tënk rek mu doy sëkk barab bi jaar nañu fi ca di ko tënk ca ni ma ko yëgee ci sama bopp noonu la ko ñëpp yëgee loolu mooy cant te cant ñaar la ci njëkk lépp sax day dellu ci yàlla waaye cant sun borom daf koo wàcce ci kaw suuf tasaare ko ci nit ñi muy dox ci kaw suuf ci kaw nit ñi loolu nag ngir rafetal seeni diggante ak seeni i ak seeni i jàpp-jàpp mu doon ne cant gu am solo yàlla itam tagg lool cant tagg itam ñiy sant ngir dayo bi cant am kon day mel ni bis bi cant rek mooy li fi dajale nit ñi sant googu noonu ma ko waxee muy ñaar benn bi cant san boroom la bi ci des cant goo xam ne yàlla daf ko wàcc ci kaw suuf ngir ñu bokk cant googu mu dox suñu diggante ndax koo seqal lu baax su ko yë soo ko yëg su ko yëgut boo ne ko sant naa la loolu mën naa am mën naa indi ak yokk am déet kon sant mënta ñàkk bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg mu cant yàlla sant tag lool sant saako nii kon jataay bi muy bis bi lépp cant la ñu ngi gërëm yàlla bu baax di gërëm Serigne Touba. di gërëm itam euh, bu baax a baax rek ci ni ñu yàlla teetee bañ tàbbi ci dugg ci loxoy Serigne Saliou ba mottali fii alxuraan man ñetti at laa fi am ak genn wàll wala sax motu ko mag laa fi ñëw ñëwee ba fi ñëwee itam ràññee naa lool doon moon ko ne kenn andiwuma fii itam maa fi woon sama damaa laxasoon ñëw ci barab bi ma ñëwee fekk laaj sëñ Abdoulaat bañ tegtal ma fii ma ñëw fi waaye sooyuñu ci ñi fi jaar ñëpp kenn sooyu ci amut ci kenn ci ñi fi nekk koo xamee ne benn sa way jur andi fi wala ku la fi mën andi ci kaw kilifteef rek jàppatul ne li nga séq sëriñ bi dana dox ba lii jotaay bii tey amee nii amut ci kenn koo xamee ne moom sëriñ Mor Fall jàpp ne lii ba ñuy séq séq séq yi ñu ko séqoon jàpp ne dox bi dana dem bañ kóllëre gi doxee nii moom la doon def lépp yàlla la ak liggéeyal ko yàlla na ko yàlla defal dolli feex may wax ne cant cant sant naa ko moom lool waaye maa ngi sant sama rakk yi nga xamee ne ñoo taxawal ñoo taxawal ñoo taxawal jataay bi muy bis bi di ci dox ci niñ ci doon doxee di ci dox ci niñ ci doon doxe ba dox bi tey agsi fii nii ba ko umbali dox bi yëg nga ko bay ba ba ba ba mu jaral la jóg man ñëw naa fi aw yoon ñëwaat naa fi yoon daan fi ñëw yoon yoo xam ne dañ dañ naan suba la rek ma ñëw fi ci àllarba ji ñëw siyaare sëñ bi yendoog moom laa dem altine ji sax weesu ñëw na sama kër ñëw na sama daara sama daara la fa nekk ëpp na téeméeri nit te ña ngay jàng ña ngay mokkal te bu may jógee fii rek alhamdulilah rabbil alamin kon may soññee ci loolu di leen gërëm itam yéen ñi nga xam yéen a taxawee liggéey bi di ci dox agsi fii yàlla na yàlla fay leen yàlla yàlla dëgëral leen yàlla na yàlla defal leen barke lépp loo xam ne yeneen koy yeneen koy yeneen koy ragal rek yàlla bu leen dajeeg moom ah li mbokk mi wax muy sëñ Xaadim jàngalekat bi njëkk a bi gën a doon jàngalekat njëkk jàngale muy sëñ daara mag mooy Jibril hmm? mooy jàngalekat bi njëkk ci jàngalekat hmm? waaye nun mu wax itam ci dayug alxuraan ne alxuraan maanaam képp ku koy ku ci nekk bul bul gàttañlu bul bul bul woyofal sa bopp bul bul tuuti ci ci ci déggin ci déggin ci ni may waxee ci déggin mooy mooy bul wuti mukk di daw mukk ci ci ci ci wuti leneen lu dul li nga nekk te gëm ko ku ne xam ne borom barab bi muy sëñ ma faal gëm koo tax li fi dox ba ak fii nii daf koo gëm gëm ko lool la def jàpp ko te itam jukko yi nit ku baax di am rek di làmboo ci eh, xam alxuraan ak di ko jëfee saa borom def na ko ci moom buñ daw bu leen daw mukk buñ daw mukk mukk mukk di wuti fenn lenn lu dul lu dul lu ñu soxla ci moom rek ci ak soxla ci leneen loo looy xam eh, nañ ko wutee ci moom loolu maa ngi koy digal sama bopp di ko digal sama rakk yëpp dégg nga loolu bu leen di ñaan lu fenn wala nga won di wuti fenn loo xam ne dangeen ko def seen bopp lu dul ngeen di jokkonteek moom ku fi nekk itam na nga fas yéene itam jóge fi ci na nga fi war a jugee loolu ñu ngi leen ko dégg bu leen cëppeelu bu leen jaar ci miir bu leen jaar ci fenêtre fexe leen ba li ngeen fi wut ngeen am ko alxuraan ko am ñàkkutoo dara mooy mooy li suñ borom mooy mooy suñu borom alxuraan mooy yàlla moom rek la sa moo des moom la Sëriñ Tuubaa defoon muy léppam yu baax yëpp alxuraan moo leen baaxal ñu amoon lu baax lépp itam eh, ci alxuraan ko jaare woon moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne ci masaalik ku bëgg ngërëmal yàlla wala nga jege yàlla saxal ci jàng alxuraan te di ko seetantal kon alxuraan mooy booy booy wut yàlla alxuraan mooy yàlla moo tax kuy wut lu loo mën a wut ak foo ko mën a wutee ak wala njàqare ju mën a doon ak lu mën a doon ci ñooñ alxuraan ci nga koy wutee comme ku fekk ku toog ci wala nga di ko wut bul doy di mbirum àddina itam jëru sax yàkkamte jëru yàkkamte waaye nag bu di gàttal wuti ci lu mën a doon maa ngi leen ci loolu lu baax lu nekk war ngeen ko mën a am bu leen fi jógee mukk di gàttal lépp lu nit nit wala xadda karam naa jeexal na lépp suñu borom ràññeelu ci ko sant Jóob ràññeelu ci ko sant ràññeelu ci ko sant Buso ràññeelu ci ko sant Njaay ba bi nga nekkee doomu aadama rek nga bokk ci teraanga ji la teral leneen la cee topp lépp nag ci nga dem ba kenn lu ñuy lim dootu li limaale itam su ma dina asfala saafilin ci ay xeetu jukko lay doon dégg ngeen loolu kon li gën a am solo li gën a am solo mooy mooy mooy nañ bokk gën a jàppaat daara ji gën a góorgóorlu waaye Serigne Moussa daal maa ngi leen di na ci li ma déey nee na sant na leen cant goo xamee ne cant amul fu mu yem amul fu mu tàmbali amul fu mu yem. waaye sëriñ bi boo déggee sama kàddu boo ko déggul maa ngi lay wax ne sa jaboot ñii de sa jaboot lañu foo ni nga leen bàyyi woon xel ni nga leen bàyyi woon xel na nga ko dolli na ko dolli. du lu fi waaye bëgg rek boo ko fasee mën ko yóbbaale yàlla na yàlla def tawfeex ci defal ñu ko ci daraja Serigne Touba maa ngi jéggul nag bu baax ci ci kàddu yi. Moustapha ci wàllu yar bi ñu tànn ci ku ñuy wax Baye Modou buso ci wàllu xidma bi maanaam ki gën a sawar ci gone yi ñu tànn ci Serigne Mor ba noppi yokku ca sellal moom nag ak njàmbaaram moo tax ñu di ko wooyee Mor sellal moom boo ko xoolee rek macha allah kon dañuy woo Baye Modou Bousso mi nga xam ne moom lañ tànn ci wàllu yar bi ñu fës ko yéene jox am ne xalam. والتقي جسماني في خبر بلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هبلي بجاي من هو المختار دنيا وأخرى خير ما اختاروا وجل جابا بيننا وبيننا kulli asan wartafi anal ayna yallaahu yaa nasiiru yaa jaliilu inni aqiirun muxdimun saliilu fal tuxnini bi kawaabi arab bi man araa jumlatan min wa arab fal tuxnini bi kawaabi arab bi man araa jumlatan min wa arab سيدنا محمد باب الفرح وسلتي إليك في نيل الصلاة وسليا وسلما عليه وكل من قدمتما إليه loolu du lu ñuy sikk sàkka lu ñuy am yàqin la joo xam ne war nañ ko sunu borom ne boo nu ko defalee suñu borom dina ko nangu kon loolu ñu ngi la koy diis su ko defee. alhamdulilah nee na kon dina am wasalaam jërë jëf. lu ne ah buñ ko ko wéeree dinañ ko saafara ah kon yàlla na ko saafaraan nu koy njot ci loolu sëñ Tuubaa waaw ah, yàlla na ko saafaraan nu koy njot ak sëñ Tuubaa sant nañ ñëpp waaw ah, sëñ Xaadim déet waay bul yëngal mbaar mi de laaj waaw moom daal sant nañ ñëpp gërëm ñëpp daal ah, sant nañ ñëpp waaw kaw ba suuf ñëpp